jërë ngeen jëf mbokk internet yi Siteu ak Papa saw mu doon ñaari mbër yoo xamante ni jamono ji dafa mel ni kat dañoo xiif ñoom ñaar ñëpp ku si nekk rek sa morom waaye nag jamono ji nga xamante ni dañ doon def seen face à si si semaine yi rek wala sax si fan yi rek ñu génn mu doon face à boo xamante ni dina wane lu rëy si seen jouru combat boobee nga xamante ni dinañ ko amala foofee ca arène nationale le 6 novembre jotee ñoom ñaar ñooñee nag bëggoon nañu laale si at bëre rek ñu génn waaye nag ki nga xamante ni mooy Papa Papa Sow dafa mujjee am li nga xamante ni mooy ay gaañu si li nga xamante ni mooy si jotee ba mu jote woon ak tëggkat yu Siteu yooyu waaye nag moom Siteu jamono ji nag dafa mel ni dafa taxaw temm pour setal li nga xamante ni mooy deram doon ay kàddu yoo xamante ni yëkkati woon na si jour face à boobee rek ne dafa taxaw dama taxaw temm pour setal sama der si combat bi lan rek lañ ko wax ba mu war a setal derem moom Papa Sow est-ce que nag mën na daan moom moom Siteu est-ce que nag mën na daan Papa Sow waaw wala déet waaye nag Siteu dafa mel ni kat pare na ah, ba pare si li nga xamante ni mooy digganteem moom ak ah, Papa Sow mu war a am le 6 novembre foofee ca ah, arène national waaye nag komba boo xamante ni combat yëpp wala sax combat bu gën a tàkk rek wala combat bu gën a neex si saison bi rek lay doon diggante Siteu ak Papa Sow ndaxte amateur yi jamono ji rek ba léegi ñu ngi si yéy di yàbbi mu doon yéy di yàbbi boo xamante ni ñi buñ ne Papa saw ñi ne Siteu waaye nag moom Siteu nee dafay setal derem maanaam mënul daan Papa Sow loolee rek moo tax mu yëkkati ay kàddu ne dina daan ki nga xamante ni mooy Papa Sow wala sax mu ne dina setal ay deram waaye nag combat boobee mbokk yi jàppale ne nag le 6 novembre rek lay am foofee ci arène nationale dina doon combat boo xamante ni combat bu nar a neex rek lay doon ndaxte ñu bëri nag jamono ji ñu ngi si yëy di yàbbi ñi nga xamante ni ñooy supporteru tarkindaa ñoom nag dafa mel ni pare nañ te nag gëm nañ baax ni seen fora moom nag nag ñi nga xamante ay supporters am taxaw nañ temm pour euh, dimbali ko wala sax pour ànd ak moom ngir mu dem foofii ci a nationale jël ndam li diggante moom ak Papa Sow comme nag du ko waa parcelle di defee waaye nag mu doon face à face xamante ni face à face bu neex la diggante Siteu ak Papa Sow kon nag mbokk internautes yi jàppale ni diggante Siteu ak Papa saw avant ñoo laale le 6 novembre euh, bii ñu dëgmal rek laale woon nañ si face à face boo xamante ni face à face bu xumb te dagar la te neex ba bëgg a dee